Donc je peux dire bien qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Assemblée nationale là où nous sommes. qui est euh, loo xamante ne ñëpp jàpp nañ ni culture générale la euh, monsieur le ministre de l' enseignement supérieur l' enseignement supérieur souffre partiellement parce que comme nu ma la ko waxee commission euh, su fekkente ne le temple du savoir ubbiwul dafay am ci ñoo xamante ne dafay metti ci ñoom loolu nag euh, man ma ciy sàkku sa côté bi nga xamante ne sa côté paternel la nga nekk étudiant moi je pense que boo dee xool ñun suñu université bi ñëpp xam nañ ni moo mën ci université yi ci Afrique su région ak sax xëy na peut-être mën nañ ko wax parfois Europe parce que benn diplôme du si génn dem biti dem def perfectionnement à l'étranger mais ci université Cheikh Anta Diop lañ génnee donc jàpp naa ni li fi xew nii man wax naa la ko te dama koy waxaat lu metti la lu naqari la xam nga ñun ñëpp on condamne les actes barbares yi nga xamante ne moom la université bi jot mais nag du tere ñu wax la ni la gis nga présentiel dafa am solo ci jàng maanaam facteurs yi nga xamante ne mooy facteurs yoo xamante ne élèves étudiants yi ñu ko utiliser ci jàng à distance bi mooy tey boo demoon man Tamba wala yu mel noonu wala nga dem dans le Sénégal des profondeurs am na foo xamante ne mënuñu jàng ak à distance parce que amuñu réseau réseau internet bi du fa marché xam nga ñooñu boo bëggee di leen wax ni leen jàng leen à distance dafay xaw a métti moi je sais que c'est difficile parce que vous avez expliqué et moi je vous mais quand même faites de sorte que les études retournent reprennent à l'université Cheikh Anta Diop et damay wax ni le le ministre des finances lu mu la ci mun a jàppale hors budget na la ko ci jàppale parce que c'est le Sénégal qui qui qui qui qui compte sur vous monsieur le ministre des finances pour que reprenne cette université bi nga xamante ne tey ñëpp ci université boobu lañ yaakaar en présentiel parce que jàng à distance c'est bon xew na Europe mun nañ ko def mais fii c'est très difficile hein facteur bloquant yi dafa bëri am na dekk boo xam ne mënoo fa jàng moi je pense que loolu bokk na ci li nga xamante ne euh, wax dëgg yàlla damay wax rek mais ça me tient à cœur euh, revalorisation suñu diplôme yi à l'étranger toujours ma wax ci no parfois da ngay am surtout les écoles de formation professionnelle infirmier ou nang da ngay am fii diplôme soo demee par exemple dëkk bu mel ni Italie xam nga dafa am euh, par exemple blocage boo xamante ne lu mu ngi mu ngi juddoo ci langage bi donc langue bi donc jàpp naa ni yooyu war nañoo xoolaat suñu diplôme yi nan lañ koy revaloriser ba nga xamante ni soo ko amee fii xëy na boo demee fu mel ni Italie du la jural problème te loolu nag mi ngi jógee si lu dul école formation professionnelle yi fu nekk ñu juddoo fa doo xam kan moo am ban droit ban licence ak lan la war a jàngale fii moom surtout en euh, en matière d'infirmier ku nekkay ubbi benn école ne xaaral ma jàngale léegi après boo amee diplôme boobu boo demee fi nga xamante ni mooy à l'étranger euh, mu mu mu jur problème donc monsieur ministre daal jàpp naa ni yore nga département bu baax département du savoir je pense que ku ñëpp yaakaar ci yow nag le Sénégal l'avenir du Sénégal l'avenir de ses de ses étudiants l'avenir de ses professionnels de demain soo entre vos mains fra virgolette italien di wax entre guillemets parce que yàlla rek moo yor euh, avenir moo yor buur mais boo yoree ministère bi ñëpp dañuy jàpp ni euh, ubbi ah, ah, ubbi université bi ci yow lañ ko yaakaar monsieur le ñoo ngi koy bàyyi si sa jàpp ni njàng monsieur le ministre moo yor ëllëg bu Sénégal on vous a donné la possibilité d'étudier de devenir ministre donnez-en la possibilité à vos enfants je vous remercie